ANACIM vélo bi vraiment ren moom euh, moom mën na wax na jaar na yoon. parce que parce que li ñuy jox yëpp moom moom jàng nañ ko dèjà te li li gën a neex encore moom moo di euh, ci ci première leçon yi ci la ci lañ jox. ANACIM filo bi sant yàlla rek parce que li ñu def mën nañ ni jafe na jafewul parce que gis nañ ko jàng nañ ko parce que si laar rek lay wax. sujet sujet numéro 2 bi. waaw man ci laa gis sama waaw ci laa gis sama bopp parce que moom laa jël. Mhm. anticipé yi moom tane na bu e, beneen épreuve nii moom macha allah ñun moom kon duñ ci tiit macha allah tane na daal abordable na.